bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim allahumma callimnaa maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi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 ma yokk ko ba tax na mu ne ñoo la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante xéewal yi rekk ma yokk sant xéewal yu noonu nag bari na ay façon lool sant xéewal yu noonu nag anam yañ ko nara defee bari nañu lool waaye bu duwutoon ka yàlla yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa bu dee ñu nag sant yàlla ci xéwali yem ñu defal ah man de xawma nuñ koy amee wala nuñ koy defee waaye ci mbaaxam moom buur yàlla tabaraka wa taala mu daal di ñuy bi nga xamante ni amaana du ñàkk ku la tax yenentu bi dikk si ñun de daf ñu andil coono yàlla anticiper ci xelaatu kookee mu ne ñu déet bu leen xelaatee nii ki ma li ñu yónni de la tax ma yónni leen ko du lenn du dara tamit lu dut mu doon yërmande ñeexle moo tax mu garanti ko ci suratul anbiya mu ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónni bi ma la yónni du lenn du dara lu dut nga doon yërmande ñeel mboolem mbindaafoo ni sallallahu alayhi wa sallam moo tax boo demee xool ci njeexantalu suratu tawba yaa ngi fay fekk buur yàlla tabaraka wa di wax yonentu bi yónni bi ma la yónni du lenn lu ngir nga doon yërmande ñeel xeet wi sallallahu alayhi wa sallam moo ne boo demee xool ca njeexantalu suratu tawba di nga fa gis buur yàlla tabaraka wa di assurel doomu aadama yi njëriñ ak xéwal ba tax mu yónni ñu yonent sallallahu alayhi wa sallam amaana du ñàkk mu am ñoo xamante dañ naan waaw yonent bi mu ñëwee daf ñoo añil problème déedéet buur yàlla dañu bu leen xalaatee nii du looloo tax ma yónni yonent bi sallallahu alayhi wa la tax ma yónni ki ma yónni nii du leen du dara lu dul njëriñ bi nga xamante ne yéen a ko war a mën a manqué cil tax ma yónni ko sallallahu alayhi wa sallam yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot bu ñu demee xool ci njeexantalu suratul tawba dinañ fa gis buur yàlla di jox yonent bi ay critères ak ay valeur yi nga xamante ne képp ku nekk ci société musulman bi war ngaa mën a xam war ngaa war a mën a gis war ngaa mën a bàyyi xel ne dëgg dëgg dëgg la tax yàlla yónni ñu yonent bi du lenn dara tax ko mu yónni ku ci xeet wi lu yér yërmande ba ko yàlla jox ngir mu wisaare ko ci askan bi sallallahu alayhi wa sallam mel ni am na ñoo xamante ne xamuñu wala gisuñu wala yëguñu wala comprendre ñu risaala ba yàlla jox yonent bi nubuwa ba yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax na mu di ko wax ci njeexantalu suratu tawba mu ne ko baada audu billahi min alsheytaani arrajim laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bilmuminina raufun rahim fa in tawallaw faqul xasbiya allah laa ilaha illa huwa alayhi tawakkalt wa huwa rabbul arshil azim sadaqallahu al azim mbokk yi téere bi da di téere bi nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala moo ne yonentu bi ne maa ko wàccee ci yow mu lambak barke fees dell ak barke ak ci yiw waaye maa la jox ndigal maa la jox permission yàgg say xeet nang leen dugg ci àllum téere alquran ngeen taqan loo xamante ne dina leen njëriñ bu dee àll la maa leen jox favor ngeen xuus géeju alquran ngeen nappee fa ay xeetu bénéfice yi nga xamante ne bu ñu gis ni géeju alquran ni suñu géej yi la nga xamante ne ay jën ak pétrole ak ñoom seen waaye dañ koy misaal dañ koy melal ne alquran comme géej kon yow mi di mool duggal ci biir géej gi nga nappal fa lala neex la njëriñ kon yow mi di ñoño alquran yow mi safoo alquran da nga xuusu géejoo alquran da fa nappee lala neex na nga fa nappee lépp lu la war a mën a njariñ moo tax yàlla ne kitaabun téere la anzalnaahu ilayka mubaarakun ñoo ko wàccee ci yow mu fees dell ak barke kon barke boobu noonu yan nañu ko yàlla dottel suñu réew ña koy safoo di ko yittewoo di bàyyi xel ña ko safoo ak ñi ko yittewoo di bàyyi xel ña koy jàngale ak ña koy jàng ak fuñ koy jàngee yan na yàlla barkel ci loolu ñu am yitt ci alquraan yàlla na yonent bi ne kitaabun téere la boo xamante ne anzalnaahu ñoo ko wàccee ci yow ilayka mubaarakun ngir mu nekk lu am barke ci yow waaw li yatadabbara ayaatihi waaye ngir ngeen nekk di xool di taxan di géem a gëstu di def investigation ak recherche kawti fi ya fa nekk waale waaye nag wali yatazakkara ulul albaab boroom xel yu yanj yi boroom xel yu màcc yi ñu man si manxee roote fa loo xamante ne buñ ko sottilee askan wi ci penc bi askan bi dinañ ci war a mën a am lañuy ñuy njëriñ yàlla yàlla fay ñay taxawee lépp lu alquran di wax walla mu di ko firi dippi ñu koy firi ci tafsir yeeg ci télé yeeg ci rajo yeeg ci internet beeg lépp waaw ndax yàlla léeg-léegi mu sélectionné ay jëmm yoo xamante ne ñooy jël alquran di ko di ko di ko leeralal nit ñi waaw ci façon bi nga xamante ne day doon mu biin téere bu leer waaw ñoom yàlla installé ci ay logiciel ay format ci ay dënn jëmm yoo xamante ne ñoo koy leeralal nit ñi ci xeet ya wuute ak ay langage yu wuute waaw ndegem boroom appareil ba nga jënd sa xaalis boroom appareil boobu moo yore logiciel yu mu dugal ci appareil boobu muy am num koy soppee léegi-léegi nga gis sa appareil bi benn logiciel daal di soppeeku doo xam nu mu soppeekoo buñ ko doon soppi sax yëguñu yëgoo ko te tàgguwuñu la kon yow la nga yore moomoo ko kon danga ci war a xam loo siy wax da war a xam loo si def ndax léegi-léegi benn donnée dina jékki di nga jékki-jékki rek ñu changé ko te buñ ko doon changé kenn tàgguwul la xamoo ko sax waaw yow da ngaa jékki-jékki ubbi sa téléphone gis données bi changé na wala logiciel bi changé na su ko defee nga naan waaw lii lu mu doon noonu la yàlla di programmer ay dënn ay logiciel ak ay xeetu plateforme yi nga xamante ne da koy installé ci jëmmu doomu aadama ñooy li yatadakkara ulul albaab wala wali yadabbara ayatihi li yatadabbara ayatihi wali yatadakkara ulul albaab waaw borom xel yu yànj yi ñooy borom logiciel ñi nga xamante ne ñooy jëfandikoo la nga xamante ne mooy aaya alquran yi ñu di ko faram-fàcceel nit ñi ngir ña nekk ci askan bi ci pinc bi ñu war si war a mën a njëriñu ñuy delloo njukkal suñu mboolem asaatise yi suñu mboolem sëriñu daara yi ñi nga xamante ne ñoo fi taxawee taxawaay ju mujj ayib sàmmal ñu ndono bi ba tey suñu sëriñu sëriñ yi jot si suñu sëriñ yi jot si suñu woy jur yi jot si ba tey ñu nit ñu nekk fa di nab nabeek moom ñoo ngi ñaan yàlla yal nañ ñu ko fi yàlla ndil ba si kanam ñu nit ñu def ci suñu kéemtalaay kattan ndono bi sàmm bi jóge ko suñu loxo ci jàmm ba mu tàbbi suñu loxo yi doom ak suñuy loxo yi sit comme nuñ ko donnee ci suñuy woyjur amin ya rabbal alamin yàlla mën na ko sañ na ko yan nañu ko buur yàlla defal nii mbokk yi téere boobu la ñu buur yàlla tabaraka wa di joxoñal ci aaya bi ci suratul tawba buur yàlla ne laqad jaakum ca dëgg dëgg dëgg gëñ naa ne dikk na leen waaw dikkee na leen ñëw na fa yéen waaw ñëw na ci yéen dikk na médecin docteur bi nga xamante ne rasulun da di yonenti waaw ah, yàllaa ko yónni de waaw ah, min anfusikum te mu bokk ci yéen ngeen xam ko min anfusikum mu bokk ci yen te ngeen xam koy wuy juróom min anfusikum te mu bokk ci yéen ngeen xam nu mu nekke waaye nag mu nekk jëmma joo xamante ne bokk na ci critère yama ko ràngoo bokk na critère yama ko bindee bokk na ci critère yama ko may man yàlla azizun alayhi maanittum waaw mu nekk ko am yitte bu kawe ci xéewal yama ko jox ngir mu partage ko ku yéen yitte bu kawe la am ci yéen ngir xéewal bam leen dikkee waaye nag xarisun aleykum bil muminin mu nekk ko am pastéef mu nekk ku am pas waaye mu nekk ko am yitte bu kawe ci yéen ngir ngeen doon ci gom yàlla harisun mu doon ko am xemmemteef harisun mu nekk ko am pastéef harisun mu nekk ko am paspas bu leer ak yitte bu kawe ak cofeel bu kenn dut natt aleykum ci yéen ngir ngeen doon boroom alal déedéet ngir ngeen doon ñu am taaru déedéet ngir ngeen nekk ñu am ay tool ak ay doom ak ay soxna déedéet xarisun kawe bu am ci yéen ngir ngeen doon lan la bugg ngeen doon xarisun aleykum cofeel bu mu am ci yéen ngir ngeen doon la mu bëgg ngeen doon lan la bëgg ngeen doon ko xarisuna aleykum Pastef bi mu am ci yéen ngir ngeen doon la mu bëgg ngeen doon ko lan la yonent bi bëgg ngeen doon ko allahu akbar ki ko bëgg xam may ñu nopp ci waxtaanu fajar bi ñu wax la ko xarisun aleykum ku am yitte la ku am pas-pas la ku am lu ko soxal la ci yéen harisun aleykum ku xër la ci yéen ngir ngeen doon lan bil muminin ngeen gëm yàlla yonent bi dafa am xër bu toll ni bu ko sañoon waa mag kenn du weddi yàlla yonent bi dafa amoon xër ci doomu aadama yi bu ko amoon kenn du fi nekk di weddi yàlla ngir xéewal ya nekk fa yàlla te yàlla xamloo ko xéewal yooyu yàlla won ko xéewal yooyu moo tax mu ne xarisun aleykum bil muminin allahu akbar yonent bi mooy ki am xir bu kenn dut mën a natt ngir ngeen doon ki gëm yàlla allahu akbar moo tax mu ne xarisun aleykum ku am cofel la ci yéen waaye bil muminin raufun rahim allahu akbar ci kaw wuy gëm yàlla ñi yonent bi daa bëgg ñu doon yonent bi da leen ëmbal rauf ñeewent bi nga xamante ne ci turu yàlla la bokk rahim ak yërmande bi nga xamante ne ci turu yàlla la bokk waaw turu yàlla ba nekk rauf ñeewent nooy kon jullit bàyyi xool moromu jullitam ñu di ko toroxal yow manees nañoo wax ni jëloo ci la yonentu bi ëmbal jullit ñi ci xeetu yirmande bu tollu ni raufun rahim bil muminin raufun rahim allahu akbar yonentu bi moo ëmbal jullit ñi rauf ba méngoog turu yàlla mu doon xeetu cofeel ak xeetu yërmande boo xamante ne boo fi nekkee naan danga koy firi walla di ko géem a taawi doo fi jógee waaye rahim waaye mu doon yërmande bi nga xamante ne yàlla ñu ko wax ne mooy boroom yërmande bu mag bi keroog bés pénc yàlla ne yonentu bi ne li nga umbal doomu aadama yi waa makka yi buñ la dëddoo faale wuñ la ci li leen di wax bokkuñu ci la ngay campagne sutuniruñu la ci la ngay campagne ah fa inta wallaw buñ la joxee ginnaaw faqul ne leen xasbiyallahu doyloo naa yàlla ak la ma jox ak la ma xam fa yàlla ak li ma leen andil waaw doyloo naa yàlla boobu de waaw ngoog mu tag si ne laa ilaha illaa huwa alayhi tawakkal amul benn buur bu fi nekk di yàlla ku ñu war a jaamu ci dégg ku dut yàlla moom laa wàkkeerlu nag huwa ndax moom yàlla rabbul arshil adim mooy boroom arsh bu màgg bi nga xamante ne dafa bokk ci turam yu màgg yi boroom arsh bu màgg bi di buur yàlla tabaraka wa taala mooy rabbul arshil adim ba tax mbokk yi boroom ars bu mag boobu di yàlla yenent bi ne ci moom la wàkkeerlu mbiram te ci moom la sukkandiku mbiram ndegem andil na leen li nga xamante ne mooy la leen di njariñ ngeen nekk fi di xelaat di géem a di géem a calcul yenent bi ne yàlla ne ko jaru ko de bu fi nekk di sonal sa bopp de waaw nel gaay daal fa qul xasbiyallah deeloo naa yàlla ci la yàlla won fa qul xasbiyallah wax leen ne deeloo naa yàlla ci li yàlla jox fa qul xasbiyallah wax leen ne deeloo naa yàlla ci li ma xamal waaw ndax yàlla mooy laa ilaha illa huwa amul benn buur bu fi nekk di yàlla ku dul moom yàlla alayhi tawakkaltu ci moom laa wàkkeerlu samay mbir yëpp wa huwa rabbul arshil adim mooy boroom arsh bu màgg bi mooy boroom arsh bu rëy bi te loolu mooy màndargay yàlla ci moomelam te buñ na arsh ñu ne arsh ëpp na juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf buñ ne kursi yu mooy kursi bi nga xamante ne ah na ko boroom xam-xam yi melale mooy ñu ne moo nekk ci arsh kon yonent boobu salaa salaam ma ñu wàccee alquran bi léegi bokk na ci naka buur yàlla di xamal ne am na sama jaam yi nga xamante ne daal ñoom foog nga yeeleen ndax bi léegi dañuy nelaw ñoom dañoo jël seen banneexu bakken jiital ko mu doon seen yàlla moo ne am na ku jël bànneexu bakkanam jiital ko mu doon yàllam waaw waaw ndax bànneexu bakkanam boobu de moo ko naan defal muy def moo ko naan bàyyil muy bàyyi moo ko naan bul def du def moo koy tere muy bàyyi moo koy digal muy jëf képp ku mel nii ci sa bànneexu bakkan moo di la jëf nga xamante ne jëfuwul nga di ko def kon sa bànneexu bakkan mooy sa yàlla mu di la tere lépp lu la yàlla digal te boo koy bàyyi tamit danga koy indi si ay textes yi nga xamante ne da naan waaw di ko utal ay argument yu fondewul parce que sa bànneexu bakkan moo la poussé loolee ki nii la yàlla ne kooku mooy ki jiital bakkanam mu doon yàlla ba tax na buur yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam afara ayta xanaa gisuloo man ki nga xamante ne attaxasa jàppees na ilaahahu yàllam hawaahu mu di banneexu bakkenam wa adallahu te loolu moo ko sankuloo wa adallahu llahu mu sankuloo ko ala ilmin ci xam-xam wa xatama bur yàlla daal di karstre ala samihi ci ñaari noppam yi wa jaala wa qalbihi ak xolam wa jaala ala basarihi mu def ci ñaari botam yi xisaawatun ay muurukaay faman yahdihi min baadihi baadillah ana kan moo war a mën a gindi kii kudut yàlla afala tadakkaruun ba xam du ngeen xelu mbokk yi bu ñu demee xool ci suuratul jaasiya dinañ fa fekk aaya bi bur yàlla tabaraka wa taala di wax yonent bi baada audu billahi min alsheytaani arrajim afa raayta man ittaxada ilahahu hawaahu waadallahu llahu ala ilmin wa xatama ala samihi wa qalbihi wa jacala ala basarihi xisaawatan faman yahdihi min bacdihi llah afala tadakkaruun allahu akbar mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ndekke am na si ñi nga xamante ne dañoo jël seen banneexu ba kenn jiital ko mu doon seen yàlla dañoo jël seen bànneexu bakken jiital ko mu doon li leen di orienté ci lépp li yàlla tere ñu di si nekk ndax loolu moo dëppook seen bànneexu bakken waaye am na ñoo xamante ne lépp lu yàlla digle seen bànneexu bakken da koy da leen koy soofloo mu di seen bopp gan ba duñ ci def dara su ko defee ñu di ko utal ay lay buur yàlla ne ñu mel noonu ñooy ñi nga xamante ne xanaa gisuloo ko ñooñu ñooy ñoo xamante ne xanaa xamoo xanaa gisoo yow yonent bi wala yow doomu aadama bi yow jullit yow jàngkatu alquran buur yàlla ne xanaa gisoo afara ayta xanaa gisoo man ittaxaza ilaahahu hawa ki jël yàllaam def ko bànneexu bakkenam nga jël sa bànneexu bakken def ko sa yàlla mu di la tere ngay bàyyi mu di la digal ngay jif yàlla banneex bi digal la lépp li yàlla digle yàlla bu lay tere mu tere la lépp li yàlla tere waaye contraire yii daal boo amee boo ko xamee ak boo ko xamul de xamal ne sa banneexu bakkan mooy sa yàlla moo tax yàlla ne ko afara ayta xanaa gisoo man ittaxasa képp ku jàpp ilaahahu yàlla mu di hawaahu mu di baneexu bakkenam wa adallahu fekk yàlla mooy ki ko sànkuloo ala ilmin ci xam-xam yàllaa ko réeral xam-xam yàllaa def xam-xam réer ko mbir moom daal baneexu bakkenam bu koy digal di ko diggal ci lu tegu ci xam-xam buy topp bànneexu bakkenam tamit di ko topp ci lu tegu ci xam-xam yàlla jaarale xam-xam droite mu jaarale jëmm jooju gauche waaw yàlla jël na xam-xam bu leer réeralal ko ba tax na xamul dara lu mu nekkee xamul dara lu muy def wa xatama yàlla nee na ma daldi kastre castre wa ala sam'ihi ma daldi di épingle fatt ñaari paxu nopp ya war a dégg samay kàddu mu di ko ràññetle waaye donte amul dara lu sañ paxu nopp yi waaye la tax mu war a dégg qaala allah wa qaala rasul yàlla neena na bi nee na yàlla nee na dégg-dégg boobu laa def sañ waaw dégg-dégg boobu laa tëj ba karnaate ko def si béton ak ciment na dégg lu ne moom daal qaala allah wa qaala rasul bu ko déggee day bëgg a rey boppam xol bi day tàng waaw ah, leneen du dut loolu moom bu ko déggee xoxoo léegi-léegi sax mu làmb poosam am lu mu jukki ci ay millions def ko ci loolu mu dégg te loolu noonu ak moo sore par rapport ak la mu war a dégg ci kawteefu yàlla ndax appareil boobu di nopp bi loolu muy déggee la tax muy jukki la ci poosam ah loolu muy dégg de ñu composé loolu ak ña tax ñuy jëf joojee mooy seytaane ak gaayaam mi joxuñu jëmm jooju nopp bu noonu muy déggee la tax muy jukki lu ci poosam yàlla mi ko jox nopp boobu muy déggee gannaaw daa ka bañ a déglu mu jël ba bakkanam jiital ko def ko yàlla moo tax yàlla sànkuloo ko yàlla riiral ko xam-xam jëmm jooju xamul xam-xam tudd xam xam tudd gis xam-xam yàlla nee na yemuma ci réeral ku xam-xamu dégg de waaye dama jàllar dal di fatt paxu noppam bi du dégg dara loo xamante ne ci sama kàddu la jóge walla mu jóge ko ci sama njàngale yonentu bi yàlla ne yemuma ci loolu de yemuma ci kastre nopp yi de waaye nag wa qalbihi dama fatt xol ba war a ràññeetle bu war a xàmmee la ma digle ak la ma tere dama kaa kastre loolu tamit ma épingle ko betone ko wa jaala ala basarihi gisawatun ma daal di muur ñaari butam donte mu ngi gis mu ngi xoole donte mu ngi mun a nas puso waaye lépp lu yàlla joxoñ ci ay màndarga yoo xamante ne day tax doomu aadama bi am xalbun muniib xol bay dellu fa yàlla mu am xalbun xasi xool bi nga xamante ne day ragal yàlla bët bay xool màndarga yooyu ba xool bi du dundee nii bët boobu yàlla ne dama kaa muur dama kaa fatt ba tax na du gis daray kawteefu yàlla la ko war a delloo ci boromam subhaanahu wa moom daal na xulli muy xool di dem ak a ñëw na mun a nas puso na mun a def lépp ci ay bëtam waaye la tax muy dellu fa yàlla la tax muy nangu kawteefu yàlla bët boobu di xool kawteefu yàlla bi xool bi accepté yàlla bët boobu du gis daray kawteefu yàlla ndax yàlla muy jaar ak moom foofu bi du gis dara moom daal du xool alquran du xool kawteefu yàlla ak butam moom lu muy xool mooy lépp lu neex bànneexu bakkanam ndax bànneexu bakkanam la jiital loolu mooy yàllaam su ko defee yàlla daal di ko jox résultat yi yàlla ne mel nii nag fa man yahdihi min baadihillah ana kan moo war a gindi ki ginnaaw bu ko yàlla bàyyee ci cànkute ba mu nekkee cànkute ba jëmm ji nekkee nii ana moo ko war a mën a mu tegu ci yoon ku yàlla waaw ah, moo tax yàlla ne fa man ana moo xamante ne yahdihi min ana kan moo mën a am sañ-sañ ak orientation bu mel ni mu delloo kii lam ko xañ ni ndax yàlla mi ko ko xañ moo ko ko mën a delloowaat yàlla mi ko ko def moo ko war a dindi be waa ji tegu ci yoon moo tax yàlla ne fa man yahdihi ana kan moo war a gindi kii ana kan moo war a orienté kii ana kan moo war teg jëmm ji ci yoon bu jub min baadillah gannaaw yàlla waaw ana moo mën a orienté kii ba mu gis yoon bu jub ku dut yàlla yàlla ne afala tadakkaroon ba xam du ngeen xalaat ah kañ kon yàlla ñoo ngi lay ñaan yàlla nga orienté xol yi jëmmali ko foo nga gërëm yàlla nga orienté képp ku nga sànku yàlla nga ko orienté may ko hidaaya allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma aatayt amin ya rabbal alamin yàlla ñu yàlla nangul lañ ko ñaan ne mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yëg si fu ñu war a yëkkati jotaay bi fas yéene jébal béréb bi ñuy joxe xibaar ci nasaraan saa'iliina mawla jalla wa ala an yaj'alana min alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana allahuma ya rabbi ati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa nicma almawla wa nicma alnasir allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih illahuma a'immatana wulata umurina allahuma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baarakallahu lii walakum fi lqur'ani alazim wa nafacani llahu wa iyakum bima fihi min alayati wa dikri alhakim aqulu ma tasmacuun wa astaghfiru llaha lii walakum min kulli zambin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu